asiru ma labra ngeen jëf mbokk yi di amati mbégte di leen dalal ci seen xibaar ñeen wàllu ko màggal atub 2023 ñeenteelu édition bi tey ji nag ñu fas yéene koo tàmbale ak lu soxal visite bu am solo bu njiitum mu mi Macky Sall amal tey ji yàggul dara ci ki nga xamante ne bi rek moo di xalif général des Mourides muy visite bu am solo ca yoon ba nag gis nañu ab sécurité bu doy boo xamante ne bi daanaka jël nañu ko wante itam ab délégation bu am solo bu ñu àndal moom Macky Sall ak ñi nga xamante ne bi rek ñoo fare ci wàllu diine fii ci diwaanu Touba Mbacké ñu teewlu bi la jàngat njiitu réew mi Macky Sall mu ngi yegg si fii ci diwaanu Touba gannaaw bi tàkkusaan weesoo bi mu yegg see ca Daaru Minam ca kër xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké daf ko dalal ci quartier bile nga xamante ne fës na lool fii ci diwaanu Touba ay takk der la ñu teg ca yoon ba ngir bu ko defee ñu saytu dem ak dikk bi lu ci mel ni waa gendarmerie nationale brigade nationale des sapeurs pompiers wante itam yeneen force de l'ordre yoo xamante ne bi lépp rek ngir saytu kaaraange gi bile tukkib ne meeku bu njiitum réew mi Macky Sall nag mu ngi bokk ci waajtaayu màggal gu mag gi nga xamante ne bi ay bés moo des ñu dal ci yegg sëriñ Bassirou Abdou Khader Mbacke porte parole bu xalif général des Mourides ministre bi ñu dénk wàllu formation professionnelle apprentissage ak insertion di Mariama Sarr Mbaye Ndiaye di ministre conseiller bu président de la république ak itam yeneen personnalité ay autorité administrative ak i kilifa diine ñëw nañu ngir fekkee ndaje bi nga xamante ne bii njiitum réew mi daf ko amal ak xalif général des Mourides màggal Touba muy 18 safar bi ñu jëm Gabon diggante 1895 jàpp 1902 muy ndajem diine bi nga xamante ne bii dina dalal ay millions ngi millions ngi doomi aadama bàyyeekoo ci réew mi yépp ba ci bitim réew mu nga ko gannaaw loolee itam dañuy gis ni rek Macky Sall bi mu janoo ak ki nga xamante ni bi rek moo di xalif général des Mourides yëkkati na kàddu yu am solo wante itam di fàttali ne moom du bokk ci élection yi nga xamante ne bi moom la ñu war a amal muy atub 2024 wante itam nee na moom Macky Sall du mës a teggi tànkam ci liggéey jëm ci li nga xamante ne bi rek moo di jàppale réew euh, dëkk bi di Touba Mbacké ñu teewlu ko gannaaw bi mu janoo ak xalif général des Mourides moom chef de l'État Macky Sall sëriñ bi ñëw naa tey andil la nuyoo ak ziara réew mi yëpp ci bés bu màgg bi di bésu lislaam di bésu cheikhul xadim di waajal màggal bi nga xam ne indi na fi ay ngeneel yu bare ci réew mi ci diine ji ak ci àdduna bi yëpp ñëw naa ànd ak sama soxna ànd itam ak ministre l'intérieur sa doom sa taalibe ànd ak ñëpp ñu fi teew ci turu nguur gi ngir ndokkale si la ci bés bi di sa bés ndokkale la waaye it sant la gërëm la surtout tey tànk yi ma fi ñëwee muy toujours tànk taalibe di tànk doom di tànk it njiitu réew boobu nag jàpp naa ne ci coobare suñu boroom waxtu wii déwén bu ko yàlla dogalee keneen war na toog fii indil la nuyoo ak ziyaara réew mi loolu ci sama coobare bopp la woon ma jàpp ne yëkkati woon na ay kàddu laata ñu may falaat ci deux mille dix neuf noonu Sénégal boo leen ma wóoloo de joxaat ma réew mi fas yéene naa yemale sama liggéey ci Sénégal ci ñaari mandat yooyu kon nag topp wax jooju ak fonk ko moo waral ma yemale ko fii kon lii di ñëw fas yéene wu ci bokk waaye loolu du dindi dara ci diggante bi nga xam ne suñu borom moo ko def muy yéene ji nga am ci man fonk bi nga am ci man bëgg-bëgg bi nga am ci man te ompul kenn ci àdduna te ma xam ko yi dëgg mu ngokk njiitum réew mi Macky Sall di ngeen am nag waxtaanam ci nu mu gën a yaatoo ci Leral TV gannaaw xibaar yi dañuy wax ba tey ci euh, li nga xamante ni bi rek moo soxal waajtaay lu euh, màggal Touba ki nga xamante ni bi rek moo di euh, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly moom nag mu woon tey ci itam ci daaru Minam ci diwaanu Touba fii la ngir amal ab visite ko xalif général des bi mu jógee ci boobule jotaay nag daanaka jot na sax àddu wax ci li nga xamante ne bi moo soxal wàllu assainissement ci diwaanu Touba Cheikh Bass wala Cheikh Abdou Bakke Bara li ñu tawlee kàddoom ci micro Jibril Khoule. assainissement bi dañ see war a jublu te farlu si ndax man la ma man mooy bu ma nekk député de peuple ñu fal ma ñaari yoon damay joxe maanaam information pare ay joxe ay solution dama leen waxoon ni pour que ñu bañ a nekk di gas li nga xam ay bassin rotation ba tey boo jëmee kër kàbbu nga jëm Daaru Rahman nga jëm Ngëlëmu fees na bu tawaatee dafa refoulé Gédé ak fi nga xamante ne mooy wetu jumaa ji nañu jël maanaam deux voies yi nga xamante ne maanaam moo jaar si autoroute bi côté bu nekk ñu def kunti ba Thiès ñuy manque ndox mi muy évacuer fa woowu fu mu jaar fu nekk askan daan si mën a bay ba pare nit ñi daan si mën jur gi daan a naan yaakaar loolu bu ñu ko defoon solution rek Touba rek lawu te loolu projet bi dama ko xoolee ak partenaires yi ma yor 70 milliards francs CFA kese la yaakaar naa loolu état war na ko def fekkente ne bëgg na defar Touba muy assainissement bi mais malheureusement nag comme li ma leen wax mooy amuñu volontaire bi tamit maanaam ah, bëgg-bëgg pour que jafe-jafe yi ñu ñu ñu génn si fii ba fukki at Touba si nawet la ñuy nekk léegi nag euh, wax naa sëriñ bi léegi nii si biir am na lu ñu dénkoon ci liggéeyu Touba bi bi mbënd mi amee yëkkat naa ñaar fukki moto pomp dimbali askan wi jënd essence joxleen leen jënd leen jox leen ay tiwo loolu nag mooy lu ñu war en tant que citoyen boo xam ni danga ngaa dëkk sa dëkk nekk député askan wi fa la doo ñëw rek di wax wala nga ñëw bëgg bës wala yooyu da ngay ñëw pour dimbali askan wi nga xam ne moo dëkk moom nga dëkkal mais gis naa mën a ñu si baree nekk ay politiciens bu ñëwee dañuy ñëw sëñ bi sonal ko wax ju bari mais muñ jël seen ñàq leen yàlla may dimbale ko population bu yaakaar loolu lu ñaaw la te loolu euh, bëgg nañ mu arrêté aussi ndax fii du foo xam ne ñëw pour défiler fu n'importe waa nga dem ñëw pour wane wu ngir bëgg am ay ay wala bëgg am ay nit wala mbooloo da nga war a génn si ñàkk ndax ñu si bari ay milliardaires lan am na alal nañ jël si alal jooju dugal ko si population bu Touba moo gën li nga xam moom la ñuy def loolu nag sama si tàmbali def naa ko maa ngi woo population bi di soñu état aussi di soñu nga xam ñooy responsable pour que ñu def comme ni ma def. du moom rek daanaka ki nga xamante ni itam moo di euh, leader bu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany mu ngi woon itam ci kër xalif général des Mourides ngir itam waxtaan moom lépp rek jëm ci wàccaay lu ko màggal Touba gi la ñu teelu ko moom euh, Bougane Gueye Dany ba tey ci micro Jibril Khoule. dañu ñëw ziar ko ci euh, safar gi nga xam ne ci lañu nekk te màggalu Touba gi nekk suñu kanam màggalu Touba boobu amuloo lu ko gën a rëy kon jaadu na ñu nit ñu ñëw ziyaar sëñ bi tallal ko suñuy loxo sàkku ci moom mu ñaanal réew mi ni mu koy defee sax boobaak léegi xam nañ ne mi ngi ñaan mais dañuy sàkku rek mu gën a yokk ñaan xam nañ ne mu ngi jëf dañu sàkkit mu gën a yokk jëf waaye li gën a am solo mooy ab murit bu jàkkaarloog sëriñ Touba da koy wax soxlaam te man su ma soxla jamono jii mooy seet nu ma mën a def ba jaam ñi seeni jafe-jafe ma teggil leen ko te loolu benn yoon rek la nee naa ko Mbàkke 2024 dañoo bëgg nga ñaanal ñu ba bu ñuy dellu siwaat fii ñu dellu si fekk kaddu Sénégal kon am nañu yaakaar ci ñaan yi mu ñaanal yi mu ñu ñaanal mais ñaan gi mu ñaanal réew wa nga sax nga wax mbënd bi mbënd mi euh, situation la bu déplorable euh, Touba mérité na lu ñu gis mérité wul lii ñu gis parce que ndox mi ci tuuba ku ne xam na ne métti na métti na waa Touba yemul ci ndoxum taw rek Touba dafa am jafe-jafe ndoxum taw ci yi ba noppi am jafe-jafe ci ndoxum naan moo tax ma ne Touba ca kanam ñu ñu war a félicité lañu ndax li ñu leen dénk ñu ngi ciy xar seen tànk tubéy ama ci wàllu ndox mi ñuy naan ba ci ndox mi nga xam ne day taa ci mbedd mi bu ci nekk ñu ngi ciy def seen kem kattan bi ko sëñ bi tegee seen loxo ak léegi donte nag gouvernement nee na def nañ ci ñoom juróom fukki milliards ak ñaar waaye nga def fenn juróom fukki milliards ki ma ki matewul ñaari milliards la mu def loolu la ñu gën a gis day tekki rek ne war nañu xoolaat doxalin bi xoolaat surtout li ñuy wax wàllu frais de fonctionnement parce que xam nga état dafa bari lu koy tënk surtout ci wàllu doxalin bi te loolu amul ci Touba ca kanam moo tax ma ne yéene bi murit am murit du xaar ku ko defal murit du xaar état mu defal ko murit day jaayante ngir defar ngir Serigne Touba. dañuy des ba tey ci màggal Touba bi wax ci beneen poñ bu mel ni rek wàllu couverture médiatique ku ne xam na ni euh, presse bi am na ci role bu am solo nga xamante ni bi rek daanaka fépp fu ngeen mënti nekk di suivre euh, màggal gi da ngeen ko am ren nag lu toll ci euh, téeméeri junni muy 500000 yoo xamante ne bi wala téeméeri juróomi téeméeri ñu baal ma kon ci ay accréditation yoo xamante ne bi joxe nañu ko lépp rek ngir fexe ba taskatu xabaar yi mën a liggéey seenub liggéey ci nu mu gën a mucc ayib ki nga xamante ne bi moo di Moustapha Gaye moom moo jiite sous commission accréditation ak itam presse ci diwaanu Euh, Touba Mbacke ñu tolloy kàddoom xam nañ Sénégal itam euh, yenn organe de presse yi fi nekk yi nga xam ne xam nañ leen bu baax waaye itam fii ci Touba am na organe de presse yoo xam ni euh, ñi ngi fi que ce soit muy màggal wala après màggal ñi ngi fi di di liggéey sëriñ bi ñoo ñu aussi dañ leen di bàyyi xel bu baax boo xoolee ren ci nombre de demande bi ñu am mu ngi toll ci mille sept cent et quelques demandes yoo xam ni. Euh, ñi ngi war a cinq cent demandes donc entre mille cinq sept cent et ak cinq cent am na différence de mille deux cent donc mille deux cent yoo xam ni peut-être duñ mën a am ci accréditation yi loolu nag liñ ci def mooy après dañoo vérifier euh, ñi demandé ñëpp est-ce que euh, ban nature organe lañ yor moo xam télévision la moo xam rajo walla presse en ligne mais gis nañu li ci gën a ràññeeku presse en ligne bi la parce que jot nañ ci lu tolloog 900 demande loolu nag li koy justifier mooy xëy na dañu nekk ci monde boo xam ne ci dafa dafa digital wax dëgg yàlla donc c'est c'est très normal waaye nag ñan ñooy demander ñooñu itam dañuy jël ordinateur xool ku si nekk ban organe nga yor euh, lan mooy sa ligne éditoriale ñu ñu vérifier ko def vérification yëpp am na si ñoo xam seen site du dox ils sont éliminés am na si ñoo xam ne seen site dina dox mais nombre d'abonnés bi ñu yor c'est très très peu ils sont bon ñooñu aussi dañ leen di jégal donc ren dañoo favoriser ñi nga xam ne am nañ plus de huit cent mille un million ba cent mille euh, abonnés waaye nag dañuy xool aussi contenu ligne éditoriale ba xam yow li ngay def méngoo na ak li ñuy def ko defee ñu mën la accrédité waa ci tënk daal mën naa ni liggéey bi noonu lay doxee bu ñu defee trib ba noppi nag ñu envoyé des mails pour joxe adresse bi joxe nombre de badge yi la accrédité wax la itam fan nga ko mën a jël see ak boo koy jël si kan nga mën a woo donc information yi nga xam nit ki dafa la waroon woo en tout cas di la ko demander dañuy fexe nga jot ko en un coup. pour le moment loolu nag c'est grâce euh, ak secrétariat général bi ñu nekk nii nga xam ne sëñ Abou moo ko jiite ak équipe am wax dëgg yàlla ren pare teel na ñoo pare ci bat ji presque une semaine avant euh, ou dix jours avant édité nañ badge ko. donc euh, probablement les années à venir incha allah probablement yenn bat yi xëy na sax dañ ko mën a joxe fii seeni si sièges yi wala à Dakar ou un peu partout. waajtaay yu màggal Touba ku ne xam na ne nag am na lu am solo loo xamante ne bi rek dañ ko fi faral di nemmeeku muy dawalkatu sareet yi ñoom nag daanaka ñooy jëlee nit ñi di leen yóbbu ci yeneen gox yu sori ci diwaanu Touba bi li ñoom nag seenub liggéey nee na ñu ngi ci gis seen bopp bu baax a baax rek moo leen xaw a gàllankoor muy fukk euh, ñaari junni ya nga xamante ni bi rek daanaka dañu koy jël di ko jébbal euh, municipalité bu euh, Touba ñoom nag nee na loolee nañu koy defee arrangé wu leen ñu teewlu ci reportage bu Ibrahima Khalil Jemé daa kanam daa kanam moo tax ci ab message de sensibilisation la xëy dawalkat charrette yi daal di tàmbale seeni màggal 2023 fii ci Touba waxambaane yile ñi nga xamante ne dañoo jóge ci ay dëkk yu fasantikoo ngir ñëw màggal si fas yéene nañu dawal seeni charrette di yeb ay client te duñ ci lor kenn comme ni ko sëriñ bi santaane muy dëkk boo xam dëkk bu ràññeeku la nga indi fa sa daamar boo fa dee liggéey it yow it liñ lay njëkk a sas mooy na nga def ndànk doomu aadama yi nga war a yóbbu boo leen dee gaañ wala nga leen di gàllankoor jëriñatul dara ci màggal gi. moom dañu leen di yóbbu ci jaam ak salaam wàcc leen jaam ak salaam yar ak i teggin ndax képp ku ne ci dëkk bi da ngaa a am yar ak i teggin te moom moom la waroon dëkk bi woote. fii ci Touba ñoom sareet yi yile xamle nañu ni liggéey bi ñu ngi koy def ñu mu waree te it ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax dem nañu sax ba xamle ñaata la ñuy am bés bu jot ci màggal gii lee bés bi yenn saa nag moom dana baax bu dul màggal gi nii moom mën naan xëy am ay 7500 wala lu ko ëpp waaye bu dee màggal gi nag moom wax dëgg dana taw fexe moom dana taw fexe da nga daan am par rapport ak bu dul màggal gi duñ bokk ndax màggal gi ku ne ñëw période bi ñu toll nag moom borom sareet ñi ngi fay 100 francs am na ci ñoo xam ne bi man foofu laay taxawee di wax sama mbokk ko. paas la waaw voie la waaw waaw paas moom naka noonee problème bi nga xamante ne moom la am fii moo di taxe bi nga xamante ne maire bi teg na ko ci seeni ndodd ci lu toll ñaari junni ci charretier bu nekk daanaka loolu mooy seen problème bi te it neexu leen. waaw 10 000 francs moom tëguñu ko fenn moom yow nga dikk tey tey tey tey tey. loo xam nga loolu mun da yéenul maanaam yow diggee tey sax war nañ laa suba nga mën a da am 10 000 loo doo dagge waaye du loolu duñ ko def 10 000 10 000 pour maire maire bi si maire bi te kenn xamul fu mu jëm saa dëkk bi fépp am ndox la foo jaar fépp am ndox la comme nim ko baaxoo di def at bu jot at bu màggal musaan ñëw dawalkat charretier yi lee dañuy wutali bërëb bu sell bi di Tuuba Mbàkke ngir rek mën a wut kenn ku nekk li ngay suturlu sutural sa jaboot waaye gàllankoor gi moo di ren gi am na soppeeku ci taxe bi nga xamante ne moom la ñuy fay ndax mairie bi laaj na nel kenn ku nekk ñaari junni laata ngay jort sa carte d'autorisation. di mooy dix mille li ñuy daggloo borom séeréer de dañ tëggut fenn. mu ngook mbokk yi Ibrahima Khalil Jame ñu lay sant di la gërëm kon nag mbokk yi xibaar yi li ñu koy jeexalee rek moo soxal wàllu ko nataalu bés bi ki ñu ko jagleel tey moom mooy euh, Maam Jaara Bousso di wayjur bu jigéen ci Cheikh Ahmadou Bamba soxna maam jaara buso gane si àddina atuk 1833 ca golléré ci jamono joojule islaam amoon na doole lool ci société bu senegaal doonoon fi soxnay maam mor anta sali boroom xam-xam bu mag ci jamono joojule yàlla mayoon leen benn bant ñu koy wax Ahmadou Bamba taxawaay bu am solo mu amaloon ko ci njàngum diine jagleel ko doomam boobule li mu yàggoon a bëgg mooy doon nitu diine bu fës lool wante itam way jur buy tàggat ay njabootam ci noone mu def ci doomam ay xar baax wante itam diine ba tax mu doon li mu doon tey muy li gën a fës jamono ji ci tarixa murit bile lépp lu mu mës a bind moom soxna Mame Diarra Bousso jamono ji doon na lu cher lool ci tarixa murit bi doon luy gën a jëmmal bile yoon ba tax at bu jot ñuy amal ab màggal bu rëy ñu koy wax màggalu Poroxaan muy amee ci dëkk bi ñuy wax Nioro du Rip nekk ca région bu Kaolack fi ci Sénégal boobu leen ndajam diine di fàttali màggal Touba bu mag bi nga xamante ne dañ koy amal at bu jot fii ci dëkk bu sell bi mu doon ndaje bi gën a fës ci tarixa murit bile màggalu poroxaan bi ñu jagleel soxna Maam Jaara Buso dina dajale ay doomu aadama yu baree bari bàyyeekoo fu ne ci àddina bi ngir ñëw ci xabrom bile di fi julle ki ñaan soxna Maam Jaara Buso doon soxna si nga xamante ne dootul amati ku mel ni moom ba faw ci àddina taalifkat bi sax day faral di wax naa naan benn jigéen dootul mel ni Maam Jaara ci atub 1863 gannaaw ba mu amee fanweeri at ak ñett ci la soxna Maam Jaara Buso daal di wuyu ji wante lim fi bàyyi du fay ba mukk mu ngook kon mbokk yi foofee la ñu jaar buur bëlee jotaayu xibaar ñeel màggal Touba atub 2023 ñeenteelu numéro bi jaajëfal Ibrahima Khalil Jemme ak Jibril Khoule ñi ma àndal fii ci diwaanu Touba ngir jox leen xibaar yi ci ni mu gën a mucc ayib ci Leeral TV ak Leeral FM jërë ngeen jëf ba subaak jàmm ci waxtu wi